<laughs> asalaamaaleykum ba mbokk internet yi nga xam ne ñuy suivre wasaare lambu ak euh, Dakar midi nee nañu amati mbégte ak kontaan te naa la xale bi nga bi ñu seet nag la waaw xale bi def na lu bari ci lambu mu war a dajeeg le 13 moog bopp yi journée bi nga xam mooy journée Assane Ndiaye Baol production nee bu ñu jugee rek lambu jugati yëngooti ah nee naa la pël bu rafet daal xam nga ñoom ñooy def ñooy génn ci yooyu lambu yi neex yooyu ñu ñoo koy tëgg Bachir dama jàkkaaru mbër rek. ñu waxtaan ak moom lan la waajal li nga xamante mooy le treize journée Assane Ndiaye parce que ku ne actuellement làmb la wax wax ci mbir mobilisation wax ci li nga xamante tamit ak mbër mi muy bëreel mooy Boy Pouye lépp dañ ci ñëw incha allah bi jërë ngeen jëf ma ma jàkkaarloo ki nga xamante mooy Balla Gaye Balla Gaye junior Balla Gaye maa ngi lay nuyu ah takke man takke rek man Balla Gaye junior laa ko xamee woon waaw man Balla ba si si bi sax Balla junior laa ko xamee ñu <laughs> jëm de ah nga takke le treize de <laughs> maa ngi lay nuyu mbër. bisimilah bisimilah inewal bi ñu sant yàlla julli si yonent bi di sant suma yaari waajur di santaat suma papa bu baax a baax a baax eh, di sant suma sëriñ Mama Samba borom Ngàcc Fall naan jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Seex Ahmadou Bamba Xaadim Rasul waaw maa ngi leen di nuyu di leen fay. Paul dafa ti ngeen mbir tëggati ngeen combat boo xamante ne nii mooy si diggante ki nga xamante ne mooy Take bu seraas ak booy Pouy. ah dafa di ngeen làmb ju neex lan ngay préparé sa bisu combat sa diggante ki nga xam ne mooy Boy Pouye lan nga xam eh, Boy li ma xam si moom mooy champion la te maa ngi koy xool di ko wax mais bàyyiwul xel li ma koy wax te champion daa am lu ko fii jëlee te li ma ko jëlee daa am lu tax ma jël ko eh, su amul fu ma ko teg du ma ko jël mais li ma xalaat eh, moom li muy xalaat. Eh, am naa yaakaar ne dina am lu ko bett trop. lan xalaat. waaw moom loolu la yaakaar ndax soo xoolee man sama combat bu mujj maag euh, Forza 2 la te suma combat maag Forza 2 dama bëri lu yàgg ba temps bi jeex et eh, par avertissement laa ñàkkee eh, si li ma ñàkkee noonu nag damay dellu santaat suñu borom bi te xam ne yàlla suy defar day mel na luy yàq bisu defet bisu ndam du bisu defet waaw bisu ndam soo ñëwee nga xam ne bisu ndam ñëw na te rafet naa si njort ni maag booy puy dama koy daal. compétir bi lu mu lay def ci làmb parce que ku la xamoon xam na ci naa lu bëre. que bu bokkoon ak seen morom ay tournoi nga wane si sa bopp carrément nga yàgg wane si sa bopp tamit ci làmb ñu toog benn instant ñu gëj a dégg tuuti ci làmb lan la ba tey nga ñëwaat ki nga xamante a moom mën na moom mu ngi compétir xëy moom dina gën a mën a miin làmb mais mun naa ne leen indaan làmb ngeen bés waru jaaxal su yaakaaree ni euh, moo ma gën a pare si physiquement mi ngi nax boppam wallaahi ku ak sa bàmmeel billaahi wallaahi avant ñu may wax làmb maa ngi entraîné trois mois avant damay entraîné mel ni ku am làmb barki seexul xaddim ndax dañoo ne mbër man dafa am lu ma gëm ndax Lamine temps yi la fekk na ma saal waaye imposé ma laaj ma ma ne ko Lamine ba ne ma naam ma ne ko supporter ndam la xam soo ñàkkee nag ba saalit ba bàyyeeku yooyu supporter yi dañuy gën a am lu lay wax mais man dama nekk loo xam ne dama am vision dama gëm li may def. te dama gëm ni dama war a doon champion te dafa nekk sama biir xol moo tax entraînement foo ma fekk damay taxaw damay dem suba ak ngoon eh, moo tax bis bi ba mu taxawee Maxi daf ne ma jëlal làmb ji ndax gis naa la yaa ngi entraîné nekkul loo xamante ni looy waajal lay doon waaw. su yaakaaree ni parewu ma mi ngi nax boppam le treize. dina xam ni maa ko gën a pare fuuf wallaahi muy si mystique muy si entraînement. muy si bëre muy si xeex. gis nañ ne yéen mbëru jàmm gën ñu bari dañuy favoriser xeex seen combat yëpp di xeex parce que seen rakk yi bëri barki démb sax. caatu caatu ci xeex la ñàkkee li nga xam ne mooy bëreem. lan la xeex bi ngeen ko maîtrise ba mën ko wala. wala bi la. soo xoolee ñun deretu jàmm gën mooy daw si ñun eh, ñun deretu gaynde bi day daw ñun duñu bàyyi moo tax doo taxawee suñ kanam naan dañ lay dóor ba nga wàcc ay ree nga ñuy def Boy Poul amul sañ amul sax fitu taxaw nga naan mi ngi xeex yee mi ngi koy wax mais daf koy dox pour dugg sama biir mémoire pour mu ñëw proposer xeex mu ñëw jël samay tànk mais su yaakaaree ni moom a mag man ay mag a ma yar eh, te ay mag dañoo waxtaan ak man te dañ ma yàpp yàqamti ma eh, dafa am lu ma war suma digganteek moom te dinaa ko motale. wala eh. boo déggee li nga xamante ne takkee loolu la wax léegi léegi ci mbirum xeex mais bu jàppee booy puy mun na koo nax ci côté boobu noonu day nax boppam euh, pël xëy na gis nga ñaari mbër yëpp li nga gis si kii euh, takkee doy na. awa. doy hmm. na mën na dara ci ki nga xam ne mooy Boy Pouye. moom waa bu xoolee si boppam rek. <laughs> bàyyil pël bi ngay dugal. <laughs> xam nga pël yow da nga xam làmb mën làmb kar masala catuma la. Ah, da nga mën a ani <laughs> analyser rek day neex mais dama ne la li nga Boy Pouye bi boo xoolee dama ko dama ko posé benn question léegi-léegi ci mbaru jàmm gi dama gis ne ñu favoriser xeex de trop seen combat dañuy xeex. xam naa loolu jikkoy tarkindaa gi la. léegi nag laaj mm. mm. si ah, waaw loolu. <laughs> dama siy sawar pour tontu ndax ñun suñ contact lu si ëpp diine la. te soo xoolee diine euh, maanaam suuf kese la du dafa bëri suuf mun naa ne suuf bu nekk foofu sax nekkul arénaatu waaw su dee côté boobu rek man tiir sama bopp <laughs> déggoo ma de <laughs> nee naa ko maa ko gën a pare te le 13 lay xam ne maa ko gën a gën bëgg làmb ji mais làmb ji nii maa ko gën a bëgg fuuf yee dafa ma jaral te dem naa si fu ne foo xalaat dem naa aussi pour sàkku si ñaan waaw. déggoo ma de waaw di woo nag waa Moundé waa Janwaar waa Diofior Fatick bi. fu ñuun waaw mais ngàcc borom ngàcc. waaw dina xam ne ni suba dama war dem ngàcc dem si maama Samba Fall mu gàcc ma ko te rus na ku ko fekk ngàcc mu bañ la koo ngàcc te incha allah làmb ji ndam laa si am waaw di woo nag waa Seras bi yëpp di woo waa Diamaguène bi yëpp di woo waa Poste Thiaroye bi yëpp. man seeraas ku ma fa fekk matériel la même booy puissance su ma fa fekkee matériel ko ndax man si li may liggéey eh, dama jàpp ni si nga mën a am doomu aadama yi te du dara loo fi gis day jeex di ko xamal ne nag làmb la day jeex nañ def fair play mais na ko leer ni nag la 13 fair play amul foofu su jeexee lañu doon waaw ne ko du yomb de su yaakaaree ni damay yomb nii nii mu ngi nax boppam làmb ji du yomb wallaahi lu mu laaj laajee lii sax ñu bàyyi ko stade dañ ko fay bàyyi barke Mama Samba supporters yi di leen xamal ne nañ teel a mobiliser wu. te eh, nationale dañ ko war a feesal eh, te dañ fa war a indi lu bees tàkk te bàq naa la nga xamante ni eh, su ma ko feccee amateurs yi jug yuuxu te incha allah dina demee noonu ñu taxal lu fair play ndax stade bi ñun moom lañu am non violence ndax stade bi moom lañu am dañ ko doon xeex waaw dañ ko doon xeex ba am ko suñ ko amee nag buñ ko saaganee nga la waaye dañuy wax ak suñuy supporter ak lu mu munti demee ñu ànd ak fekk ndax sport la rek noo mën a def kenn day jël kenn ñàkk ndax yàlla saaxul ñoom ñaar ñëpp ku si nekk am ndam foo kenn ki ñàkk ku si nekk am nga si sa tàkkusaan mais kenn ki su amee tàkkusaan keneen ki na gore rek ñibbe te xam ne suñu booram bi dencal na ko leneen lu daax ki tëgg làmb ji di seen moromu seen ku si mel ne Assane Ndiaye xam nga ànd seeg équipe Baol production yëpp di di si nuyuwaale tamit waa Bawal TV ña fay liggéey ñëpp di leen bëggee tamit boo xoolee que ni xale la mais yéen tamit ay xale ngeen bis ba si wàllum li ko taaral ci wàllum mobilisation beeg wàllum li nga xamante ne mooy ay supporters nan nga si fasoo yéen tax ba ki nga xamante ne ngeen amal contrat ba mu bëgg moom tamit parce que promoteur bu bëggee rek mën naa yéen ba di ngeen bëgg. yee Assane Ndiaye di ko xamal ni di ko rëccu ndax si Baye Fall bi la dugg te bi lu mu dugg da siy dem ba jeex tàkk muy si mbooloo muy si doole muy si waa lu si lu ti doon yee am nañ ci yàqin am nañ ci rafet njort boo xamante ni day réussir waaw te rafet nañ ci njort bu baax ndax combat bii nii man man dama si gis loo xamante ni man mosuma ko gis si sama làmb barke Seexul Xadim comme bii nii mooy sama premier combat façon doomu aadama bu ne yee dafa taxaw pour ñëw jàppale ma si mobilisation si mystique yee si lu mu doon yee dañ ma taxaw seetaanuñ ma surtout lawbe yi ku si mel ni Fouta moo leen diriger. ku si mel ne Jibi Kebe mënuma ko fay Jibi Kebe lu mu def si làmb ji daanaka ëpp na 500000 di dem. loolu ma wax mu ne man dam képp ma ñor lu mu laaj pour ñu def ko si dama ko siy def. yéen kan jëmm yu mel noonu aw ma seen fay ku si mel ne Assane ku si mel ne Talla Baye Fall Taqe ñoom Ousmane ñooñu mënuma leen fay suma gaay ñoom Ibou Ndiago. barke maam Serap aw mu benn autorité bi nga xamante ni yee jàppale mu te man du ma dem si benn autorité naan ko may ma lii. man damay liggéey. mais it su may xarit seetaanuñ ma autorisé bu si xamul lu ko war yaay ñu ne duñ dem di fëgg kenn di ko bëgg lu ko neex yaay ba koy waaw di topp si ginaa am di wax lu bëgg lu ko neex waa mais nag suma gars yi maa ngi leen di sant bu baax waa Dérangé bi ñoom Ibou Ndiago Assane Baye Góora sama raq lamin ñoom Maas waa ku lim da ngay mais gis naa ne ñoom sonn nañ si affaire bi trop euh, làmb ji bëgg nañ ko nag mais man maa leen ko gën a bëgg bu baax ndax dama xam. waaw ndax soo xoolee mbëru jàmm gën yi boo yëpp ñun ñëpp waaw ñii le 9. ñii le 13. ñii le 19. c'était le euh, le premier euh, Liss Ndiago le 4. Maama Lamine le 19. léegi di ñaanal ñëpp ndam te rafet naa si njort du ma ko ibbee ndam mbëru lamsaar yi mbëru jàmm gën yi ñoom ñëpp dinañ am ndam. Eh, di ñaan maanaam réussite total daal waaw si booy jàmm gën ñëpp waaw muy si man muy si ñëpp waaw na ñëpp am jàmm. jaajëf jërëjëf pël ñoo ko déggandoo kàddu yi nga xamante ne takk yëkkati na ko nekk na kàddu yu rafet ah sëñ Bachirou ñoo ko déggandoo kon ñu joxante rendez bi bala national Pikine na journée Assane Ndiaye ñoom bawol balu ñoo yëngooti waaw lan ngay tàggatoo ak nga xamante ne nag ñooy suba teeru waaw li may tàggatoo mooy suma gaay rek yee dinañ leen nañ waaj waaw ñoom Ablaye Seck ñoom ñëpp nañ waaj te xam ne bis bii daf maa jaral te lu ko jar moo ko jar ngay man lii nii nii bis bii nii booy bu su yaakaaree ni day yomb <laughs> mi ngi nax boppam de <laughs> voilà noonu la mel nag <laughs> waaw su yaakaaree ni day yomb moom mi ngi nax boppam. laa mujj bëgg naa ko trop te incha maa ngi ñaan suñu borom bi may ma ndam. Eh, mu nekk ndam lu kawe suma njort mu nekk lu ma jig waaw di si ñaan réussite totale te incha allah eh, maa ngi tàllal suma loxo suma sëriñ maama Samba borom gàcce mu fasaaleel ma di sant sëriñ Sidi Alxuraan bu baax a baax di sant sëñ maam Cheikh Mbacke waaw ndax moom it dafa nekk jëmm ju ma bëgg waaw sëñ seex jëmm Fall leeru Maama Samba borom gaaj ak Serif Assane Fall waaw njabootu Paalen bi yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen xamal ne man alalu Paalen la waaw képp ku sant Paal maa ngi lay sant pour nga ñaanal ma suma làmb ji muy Serif dara yi waaw su waa wàllum Tidiane yi sëñ Babacar Seck waaw si Laayeen yi. waaw ñëpp maa ngi tàllal suma loxo pour ñu àlleel ma pour ma am ndam di sant suma nijaay yi nekk waalo ndax gis naa ni sonn nañ ci làmb ji eh, bi làmb ji taxawee ba léegi ñu ngi ciy def seen jéego incha allah damay ñaan suñu borom bi yàlla bu yàlla tas yaakaar waaw ma am si ndam lu set wicc maag booy puy jërëjëf